mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa xam nga ñu bari dañuy interpréter loo xamante ne euh, gisuñu ko parce que boo jógee en 2012 2013 effectivement toog naa une année mais bu fàttali ne en 2014 Lamb Académie dañu may yóbbu ci GFM euh, ma àggale la seen seen seen concept donc mooy ñoom Cheikh Tidiane ak ñoom euh, euh, Léonel ñoom hmm, Souleymane Sarr ah ak ñoom le gosse Mbaye de de des Tigres donc ma àggale concert boobu donc en 2014 donc ça implique na ba tey maa ngi ci làmb ji voilà mais bu ma beneen mbër woowoon wala ñoom ñu soxatoon mu woot ma ñu war a war a dem su dee kii mais bu ma damay dem ma dem su ma bëggul dem ma dem entre temps y a beaucoup de lutteurs yi xam ne woo nañ ma pour ma kër ci leen mais dama ne non. je préfère non je préfère faire autre chose parce que dem naa fa temps boo xam ne ni xëy na naa fa lu bari fexe am naa fa samay diplôme donc naa ko delloo encore askan askanu làmb ci laa toog ba 2016 2017 CNG oo ma ne ma kat équipe bi Dakar day dem drapeau chef d'état yoo leen koy dénk et pourtant ñu fi nekk ci entraîneur bari nañu mais bu ñu ma tànnee ne ma kaay yóbbu équipe bi Dakar donc je crois pas que tey période boobu man war naa mën a yor parce que sama concentration fa lañ koy jëlee ma nekk fa liggéey ci ak Ibra mbay ak équipe bi ñu nekkaloon def si sélection yàlla dimbali ñu vingt six ans après ma indi fi drapeau sur ak équipe bi à Kolda waaw donc ci lañu gagné Fatick donc deuxième année bi ñu dem en 2018 ñu dem Mbour ñu demaan encore dem jusqu'en finale donc deux années successivement ma finale ko bii ma gagné ko bii ma perte ko donc je crois que mission bi ma CNG dénkoon aussi euh, jëm dinaa sama capital taal de dinaa ci def naa ci li ci war def ba yàlla jox ci benn médaille d'argent ak ak benn médaille euh, de comment ça s'appelle d'or voilà donc loolu je crois que mission boo xam te nii bu ma joxoon la 2019 bi làmb amul bëri amul donc ñëpp taxaw donc loolu moo waral tey amul kenn ko wax ne affaire kii loolu loolu donc donc semble que ne génnuma ci ci làmb ji donc fi ne niveau bi ñëpp amul kenn ku nekk dans activité de donc amul làmb bu ma demul làmb bi ba ba ba bi am bi ñu arrêté Covid bi maa ngi stade bi bi moo tax ma ne bàyyiwuma làmb. non amateur nga fa demee rek mais pas comme coach non amateur parce que ngay dem consultant. non j' étais à la 2S boo tax ma ne da nga xamul ma def naa trois ans à 2S Bantamba TV. fa la nekkoon boo duggoon Google nga dugg ou bien nga dem YouTube nga dem Bantamba TV à l'affiche di ma gis nga dem Bantamba TV les informés di ma gis nga euh, dem Bantamba TV rencontre avec di ma gis donc. ba naa sa benn émission boo doon def sax en français. boobu laa lay wax nii nag donc maa donc ça veut dans l' activité mais maa ngi ci beneen activité donc maa ngi ci activité consultant télé bu oh,